ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet daara du rëcc ci réew mi. salaamaaleykum Sénégal Moustapha Diop ministre Cour des comptes dañoo ñëw bureau mu dàq leen Macky la faral dara fekk ko ci Mansour Faye bi Cour des publier le rapport ci sàcc bi ngeen sàcc alalu sénégalais yi ci mbirum Covid bi dafa accuser les magistrats ne leen vous êtes des politiciens encagoulés des politiciens déguisés goro Macky la moom la faral dara fekk ko ci Madiambal Diagne bi le juge xam Keïta rendre sa décision sur l'affaire Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang daf ko attaque ne ko wuyu nga ñu ne déet na waay mu ne ko forfaiture nga def ñu ne déet na waay mu ne ko xamal naa la ay mbuur di ñaaw sa kër sa famille ñu ne déet na waay mu attaqué le président du tribunal grande instance de Dakar monsieur le juge Moustapha Fall ne ko dossier bu toll nii waru leen ko jox cuune bu mel nii Macky la àndal dara fekk ko ci nit dof yëkkati ay kàddu wax ko ci kenn jubalewu ko ci kenn tuddul kenn quelques minutes il s'est repris mu ñëwaat janowaat ak sénégalais yi ne maa ngi jéggul wax naa lu ëpp wax naa lu mu ko warut a waxee woon xameewu leen ma ko mais j'étais sous le coup de l'émotion maa ngi ciy jéggul mais depuis le 24 janvier ngeen téye ko déglu ngeen ko sur le fond y a de témoin à écouter le dossier a été bouclé depuis plus de quarante jours mais moom depuis plus de trois mois mu nekk ci biir kaso bi ngeen téye ko fa jugé wu leen ko may leen ko liberté provisoire mais ça c'est de l'acharnement ça c'est de la répression judiciaire bàyyi leen jàmbur bi mu dem parce que nit dof gaynde la vous ne pouvez pas le casser c'est peine perdue sa waay gaynde la vous ne pouvez pas le casser ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér wóor ak Dakarnet dara du ci réew mi